ñu fas yéene taxawandoo ci Tiwaawan di ko defee ci action sociale yi nga xam ne naa koy dégg te waxuma ko def fi mu dëkk ak ci biir Tiwaawan bi yëpp mu nuyu tamit suñu jigéen ñi waa Basan wax teraanga yi teew nuyu comme ni waxee képp koo xam ne rek tey jii teew nga ci sàll nuyu tamit ñii di taskat xam ni vraiment lépp lu ñuy def muy waa Tiwaawan ñu ñuy jógee Thiès ak ñu jógee Dakar dinañu ñëw fexe ba loolu ñu yëwalal ko présenté ko présentation bu ci ay tey nag li ñu fi dajale du sama njariñ man rek du njariñu la république Macky Sall rek la waaye surtout nag njariñu la suñu defee taxaw seetlu ci Sénégal ba muy Sénégal ba léegi waaye muy Sénégal muy àdduna dafa am li nga xam ne yitteel na ñépp yitteel na gouvernement yi waaye yitteel na borom kër yi yitteel na ndaw ñi yitteel na mag ñi yitteel na jigéen ndax nit nag gannaaw ba ñu yàlla defalee xéewalu def ñu ay nit ba pare daf ñoo indi si ñuy war di góorgóorlu di ut ñun ñëpp lu ñu suuroo am ay njiit ñuy teg suñu kanam ñu warloo ak ñun kaaraange warloo ak ñun wër yaram waaye warloo ak ñun tamit créer ay conditions. soo góorgóorloo tuuti mën a defal sa bopp ku si nekk nag la ngay liggéey suñ ko boolee ñun ñëpp loolu mooy doon richesse si dëkk loolu mooy doon yokkute dëkk bu njëkk bi ñu soog a jël indépendance Sénégal da ngay dégg ni juróomi million juróom benn million juróom ñaari million waaye dañuy demee ba daanaka weesu nañu million ak juróom benn ci Sénégal ndaw yi ñoo ci fuuf maanaam téeméer boo jël ñu ngi la juróom fukki yaak ñaar juróom fukki yaak ñett ay ndaw lañu te sax booy seet loolu suñu li ñuy ndaw ci lislaam boo ci dugalee ñi nga xam ne am nañu fanweeri ak juróom jëm kaw day ëpp loolu fuuf te wax ndaw nag ci njëlbeenam wax ki nga xam ni day consommer maanaam dañ koy liggéeyal muy consommer si ni jamono tëddee ndax bu jëkk suñu wéy yi dañ daan am njaboot lu mu gën a bari mu gën a baax si ñoom ndax jamono gi dinañ teel a dem tool di bay sàq bi di fees at baax waaye ñu dem ba jëmi jamono place bi mbay amoon amatu rôle bi mu doon joué joué ko naam bi muy joué léegi bu am solo la ndax li ñuy dundee yëpp fa lay jóge waaye léegi li ñuy wax agriculture intensive moo am bokkul ak agriculture intense euh, bi nga xam ne dañ koy def ci ay place yu yaatu yaatu lu nit ñi gën a bari mbay ñi di gën a baax léegi mën nga am place bu ndaw bay ci lu bari ndaw ñiy jàng ba ami diplôme daanaka kon léegi ñun ñëpp suñuy njaboot dañ leen di xirtal ñuy dem jàngi école gannaaw bi nga xamee ni si nga xam ne ay jullit lañu jàngal nañ leen alxuraan wala ñuy boole ñaari nga jàng école dugg juróom-benn juróom-ñaari at diggante boobu ak ngay am baccalauréat di nga am ñaar fukki at ñaar fukki at ak benn bi ngay am maîtrise bi nga am ñaar fukki ak juróom jëm fanweeri at kon diggante boobu yépp dañ la war a taxaw di fay sa njàng di la la bourse kon mën nga dem am fanweeri at daanaka doo nekk nit productif bu fekkee yaa ngi système éducation bu fekkente nii ñi nga xamante nii jigéen ñi la ay jàmbaar lañu wante suñu société daf leen a yàggoon a féetale ci kër gi ñuy wax femme au foyer ñu féete ci wàllu boobu naan jamono wane leen lépp loo xam ne ñoom ñu ngi ciy yëngatu ñoo cay gën a doon jàmbaar muy ci rôle classique yi muy ci jigéen ñi nga xam ne jàng nañu ba am ci lu ñu jàpp buñ dee magistrat buñ dee avocat bu ñu daan si bu ñu dee ingénieur bu docteur wala bu ñu dee sax femme entrepreneur ñëpp seede nañ ni ñoom ñooy gën a doon ay ay jàmbaar ba tax na ñi nga xam ne si ñoom sax liggéeyuñ ci loolu ku si nekk yaa ngi góorgóorlu ndax Sénégal defe naa ni avec dem nañ ba ko tas ci réew mi groupement de femmes yi ku si ne yaa ngi yëngatu ci dara. te la ñuy yëngatu la muy ndaw ndaw da ngay gis cawarte lañ ciy àndal di ci am ay résultat wante am nañ ay contrainte bu fekkee accès à la terre la am nañ ci contrainte bu fekkee am koom boo xam ni moom la ñuy déparé gérer li ñuy gérer am nañ ci ay contrainte ndaw ñi ku ci bëgg a liggéey am nga ay contrainte pour am ay financement am nga contrainte tamit am formation ñan ñoo lay encadré loolu yëpp nag suñ ko boolee suñu bàyyee ku nekk mu demal boppam amaana xëy na situation boobu dina perdurer dina yàgg te réew mi fi ko bëgg jële président de la république Macky Sall bu ko fi jële yóbbu ko xëy na dina jafe biñ defee taxaw seetlu boobu ñu ne li xew Sénégal la wuuteewul ak li nga xam ni moo xew fii ñu dëkk muy Tiwaawan ñu dem ba jëmi jamono malgré yi nga xam ne président mi ngi koy def ndaxte nag ku comprendre lu politique doo ci mën a épanouir ndax nekkul politique bu gouvernement mooy recruter ay ndaw ak mu jot suñ ci recruter cinq mille maximum dix mille fa lay mën a yem mais dafay créer ay conditions économique bi di développé dafa wax développement économique di nga wax ay infrastructure te kuy tabax di nga wax médeur di nga wax ubbi xaalis ay ndaw di ay jigéen di nga ay mag ku si nekk la ngay liggéey di ci sutur di ko consommé ñiy jaay di di jënd jamono yoo xam ni li ñuy def ci Sénégal bare na ñuy jóge bitim réew ñëw également di fi investir li ci jiitu mooy un président de la république day am lu ñuy woowee vision day am gis-gis jox ay defee réagiste bi ndax lan benn contexte boo xam dinaa ci ñëwaat léegi yombalal investisseurs yi créé lu mel ne APIX def ay guichet unique nga xam ne ku ñëw bëgg a créer entreprise bu la jafe Sénégal yombalal